original ay waay fii pur jus de fruits original moo leen di wéttali ci seen bépp ku nekk ci réew mi xam na débiteri le mbote 1 chez Papis bu Serigne Saliou numéro téléphone am di 77 036 50 88 wala fixe ba di 33 822 13 88 ndaxte nag débiteri le mbote 1 Médina rue 11 angle 8 ñëpp a ko bëgg a toppandoo ñi nekk ci biir Facebook bi naan ñoom ñooy le mbote te moom moo créé markam gën fi safle dibi loolu dafa leer débiteri le mbote 1 méchoui sur commande grillade sur papier pigeon moo ci mën poulet moo ci ci mën dibi bu ñu saaf yëfam la méchoui sur commande wala possibilité vente détail débiteri la mbote un papis mu sëriñ saaliwu mi ngi nekk fii ci Médina rue 11 angle 8 dafa am ñoo xam ne dañ koy piraté naan ñoom la nekk ci Facebook bi di détourner clients yi gars yi wàcc leen la mbote bàyyi leen papis bàyyi leen papis borom méchoui borom dibi saaf numéro bi rek la am 77 036 50 88 wala 33 822 13 88 fii la safe beauté, on est ensemble. Ça bouge pas. ayca jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel seen chaîne bi di Bawal TV ak li ci réew mi TV naar faam ngi leen di nuyu di amaan mbégte contentement di jàkkaarloowaat ak yéen mbokk ñi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal ñu faatu yàlla yërëm leen xaaral aljana ñu tawat yàlla na yàlla fëgg seen bopp ñu ci ab féete ginnaaw yàlla na suñu borom génnee bañ dellu siwaat suñu biir mbokk ñu leen koy defal comme ni leen ko daan defalee saa su ne nee na leen fépp champion nekk dinañ fa dugg waxtaan ak moom waaye mbokk yi tey ñu ngi fii ci Diamaguène seet si kenn ci xale yi koo xamante ni macha allah dafa marqué empreinte tam ci làmb def ci làmb loo xamante ni mbokk yi nee naa leen làmb reconnaître na ko koo koy kan euh, abu Ndiassé bu Diamaguène Abou Ndiassé bu poste Thiaré Abou Ndiassé bu tableau Tivaouane Abou Ndiassé partout laay wax parce que yaakaar naa ni foo dem gars yi dañ koy béggee moom noonu toogal tey fas yéene waxtaan ak moom ci làmb waxtaan ak moom ci carrière am Abou Ndiassé fan la jëm ci làmb ñan ñooy ay potentiel adversaire am loolu yëpp di ngeen ko xam tey ci li nga xamante ni mooy Abou Ndiassé duñ def lu dul bàyyi ko mu nuyoo ñu waxtaan ak moom Mor nuyu nan la si yàlla. Naar nan lay bëggee xam nga ginnaaw ma sant yàlla julli si yeneen bi sama ñaari waajur xam nga santaat sama ñaari waajur sant sëñ Sidi Mbacke sama sëriñ xam nga di santaat sëñ Seydi Mbacke sama sëriñ xam nga di baalu àq ñëpp di sant xam nga jaamam sëñ Fallou Fall xam nga waaw di bëggee ñëpp. waaw di sant ñëpp daal di baalu àq ñëpp tamit. Eh. daa mel koor gi jàpp na ah, gi xaw na ma jàpp ñuy woor xam nga di julli di jaamu yàlla xam nga sellal xam nga teg ko si yoon xam nga parce que xam nga yàggul benn weer moom méttiwul quoi waaw. nan la ci am di dérouler ay euh, activité am côté entraînement. waaw. bés boo ndogoo ba pare ngay mën a dem laal lu yem ñëwaat toog parce weer bi dafa nekk weer boo xam ne xam weer bu màgg la quoi kon nit ku nekk war na ko mën a sàmm xam nga moytu si lépp loo xam ne xam mooy loolu yàlla waaw génne ñu si jàmm te gëm naa ni léegi mu jeex quoi waaw. jàmm gan. waaw nice nice gisoo nii la ko gars di dundee gis nga ceene dund xaal la xam nga toog bégee. ku si nekk après dem uti loo am ñëwaat ceene. Eh, jàmm gën ku leen xam xam leen ci mbooloo ànd bokk ndey ak baay doon benn jàmm gën ñu lañu dégg ci coow Abou Ndiassé bu déggee jàmm gën ci coow nan la koy. non jàmm gën na amul coow fii ba jàmm gën si ka mbaaw lamsaar fépp amul coow quoi nit ñi ñoo fi nekk di wax rek. leen gëw ma ne am na coow ko gisuma fi coow quoi xam nga nit ñi nag dañu baaxoo wax média yi mais man gisuma fi coow quoi ñëpp ñu ngi si jàmm ñëpp ñëpp. waaw man loolu laay ndax Ikiri ba Ikiri Lamsaar. Ikiri Lamsaar ñëpp ñëpp a ngi si jàmm wax dëgg fa yàlla waaw. mais ñu gis euh, ki nga xamante ni mooy Mama keroog mu def sorti wax li nga xamante ni moo ko dal ci mooy juróom bi génn àdduna ak li nga xamante ni moo ko dal ci seexam bi nga xamante ni téye nañ ko Abou Ndiassé yaakaar naa ne déglu na sorti euh, Mama Lamine boobu ban jàngat la ci def. non seetaan na guma ko bu baax a baax nag. ay dagg-dagg la ak mais loolu dara maama suñu waay la suñu waay la xam nga loolu la nice garaawul waaw loolu la rek te suñu gaan la suñu gaan lay doon saa su ne eh, dorawuñ dara man bëgguma sax di wax si loolu parce que ñun ñëpp famille la nga xam mais nit modul loolu la garaaw moom suñu waay la amul mënul am ñu ñu sut non loolu kese la boo booy dégg nit ñi di wax seen diggante yéen mbër yi ñenn ñi di ci wax loo xamante ni euh, day day jaaxal ñu bari loolu la lay non ñun nag dara newul suñu diggante ñun fii muy ñun ak ñiy àndal ak ñiy nekkal ak dara newul suñu diggante ñun daal mel nañ ñoo xam ku ci gis sa morom nekkul si yoon di nga ko ko wax. waaw ñun lañ mel ñun ñëpp fii ñun ñu ñuy ànd ñi ngay gis ñu nekk si ginnaaw ak ñëpp ñoo fowandoo màggandoo dundandoo. Uh-huh. kon ku si newu si dëgg rek moom dañ la koy wax muy man ak sama morom ak keneen ak keneen ak keneen a si yem. ba ci Siteu ak Maama Lamine ak Abok man jàpp ma ni problème am na de. te mosuma ko jàpp tamit yàlla xam na loolu. waaw incha allah dama gëm ne dañuy ànd léegi préparer seen combat lépp. mais annonce bi mu def ne day bàyyi làmb d'accord nga ci. non maama mënul bàyyi làmb bu bàyyi làmb lu muy def. ah. waaw na ko gars yi jox combat nga xool dina bëreem du bëre. ama bàyyi nee na bàyyi na ko gaa yi jox combat dina bëre farfos. waaw hmm. ah, farfos. Hmm. jàpp nga ni wax ji mu wax da koy wax noonu rek. mais garaaw loolu dara. Hmm. nañ ko jox combat xam nga nañ ko jox combat bu mag fay ko xaalis bu weex. mu dem préparer bëre làmb mooy métier mënu ko bàyyi. bu ko waxee day kàcc rek. am na solo <laughs> euh, ku xam abu Ndiassé xam ni champion la ndaanaan la def na ci làmb ne mais Abou Ndiassé euh, gars yi dal gi dal gi ne ci abu Ndiassé. la moo ko def ci moom. parce que gars yi dañ ne jàmm gën gars yi dañu tàng mais Abou Ndiassé moom dafa dal la moo ko def mais man mooy loolu man moom nii laa mel amul tamit gars yi fii mooy loolu. fii dafa bëri gaynde fii amul segg amul muus. mais bu ñëppee nekk gaynde mais di nga am koo xam ne même donte ne mais waaw. macha allah waaw ah, mais bu dajalee nag ñëpp ñu nekk ay gaynde dañ koy nekk. Mhm. waaw loolu quoi. xam naa dinañ ñëw ci carrière bi ñëw ci li nga xamante ni mooy potentiel adversaire yi mais dañuy ñëw tuuti ci ki nga xamante ni mooy tarkindaa bi Siteu tey boo ñu doon wax sa digganteeg moom. waaw loolu xaw ma baa ba ndaw loolu lañ koy xaw ma xale ba mag la quoi du tey xam nga loolu moom yàgg na xam loolu moom leneen la quoi du tey quoi dafa yàgg eh, ñu ñu dund ko xam mu doon dëgg nag xam nga waaw moo tax saa su dañ koy sàmm xam nga xarit yombul quoi. moo tax boo ko amee da nga koy fonk loolu kese la quoi. Mhm. macha allah tey balaa ñuy ñëw dañuy dañuy ñëw tuuti ci Zarko dañoo gis ba Mama Lamine dafee sorti Zarko def sorti moom it wax wax ay wax yoo xamante ni ñu bëri ñu ngi koy métti rawatina waa jàmm gën ay góor du yëramtaloo. Ah, moom man nag seedaanu ma ko xaw ma ñenn ñoo koy méttiwuloo ak yooyu mais seedaanu gu si lu bëri ak ñu ko méttiwuloo. seedaanu vidéo Zarko. non seedaanu gu ma si lu ko waa xam Zarko moom benn phénomène la bu nekk si biir làmb nii rek il faut gars yi comprendre ko xam nga moom mooy loolu moom dafa firi moom genre doomu aadama boobu la lu ko saf da koy wax moom mais bu ko kenn topp bu ko kenn jàppee loolu nit ku nekk ak ni la yàlla bindee il faut nit ñi di xam loolu Zarko noonu la ko yàlla bindee moo lu ko bala amee si dara waaw moom mooy loolu quoi ñu ñëw ci Siteu mu am combat royal war a dox ci digganteem ak Modou Lo combat tey nan ko gisee. waaw combat boobu li ma la wax rek man ni ma ko gisee mooy en tout cas nga gis Siteu boo mës a gis première chose di nga gis waaj boo mës a gis xam nga di ngeen gis Siteu boo leen mës gis te incha allah man dama gëm ni Siteu mooy kiy dëpp Modou Lo dama koy waxaat waxuma ko ngir bëgg lu neex doomu aadama wala lu mais ñun ñu nekk ak moom yàgg ànd ak moom xam nañ ko bu baax barke Sëñ Tuubaa Euh. mais mais ngëm-ngëm gi ngeen am ni Siteu mun na daan Modou Lo parce que léegi DG wax na ko Siteu mooy kii dëpp Modou lu leer na la DG wax. waxoon teewu ko pour bëgg lu neex Siteu de xam nag qualité bi nekk Siteu tey ñii wax Siteu nii nekkul dañoo ànd ak Siteu nii nii ay bi muy bëre mbapat ba léegi ñu lañ lañ ko xam kon ñun lu ñuy wax am nañ fu ñu ko teg làmm nag moom mu ngi noonu rek làmm moom moo demee noonu uh-huh. ñu bëri combat bi neexul leen de. combat Siteu waaw ñu bëri. non parce que yàlla mooy dogal. gis nga yàlla noppi na. Siteu gis nga li yàlla def si jiwam bii nii. ala kulli ala munu si dara. keneen munu si dara. waaw mais yàlla noppi na. te dañuy bëre du waa des arènes incha te dañ koy andi fii si kàttanu yàlla. macha allah bi taxaw ñenn ñi génn ne dafa yomb. combat làmb ji làmb kombin la làmb ji dañ koo waxtaane ñooñ doon naan ay làmb kombin la ak. Euh, non ñooñ dama bëggoon nii dañoo bëgg xam naa làmb boobu moo moo ub maanaam dafa bëri coow bu dafa ub seen maanaam affaire bi da leen jëlee surprise ñoom. Uh-huh. moo tax da leen di choqué mais man loolu du surprise si man. Uh-huh. man dama yàgg a gëm ni Siteu Lac de Guiers lay bëreel jigo fa bëreeg moo Lo doo ko wàcc bëreeg gars yi loolu dama ko yàgg gëm. waaye combat bi Siteu ay gaañanam ñoo ko si forcé ñoo ko bëgg. Mhm. te tamit lu ay gaañanam bëgg bu ko bëggul moom nu mu war a def. Lac de Guiers ñoo man maa taw bi ne Siteu Lac de Guiers lay bëre gars yi gëmuñu ko woon. Mhm. pourtant bëriwul ak moom. même ba si Modou Lo mii bi ñu bëree man maa ne Siteu day bëre ak Modou Lo. donte mooy loolu ñun gars yi bëri mais bañ bëgg dañ koy def. parce que mooy adversaire waa mooy adversaire li sax gis nga làmb làmb dafa doy waar quoi. Mhm. parce que man mënu moo bëre exemple tey Lac de Guiers combat bu métti te bu leen fàtte ni Lac de Guiers Modou Lo daanu ko donte ni daan na ko benn bi par avertissement benn bi ñu niil mais kon kooku làmb bon na ma mën a may chance ma test mu testé ma xool ah. mais mais Abou Ndiassé xam gi mu xam Siteu ba di di teg ay combat ne Siteu kii lay bëreel bu ci jugee kee lay bëreel da nga xam Siteu lan la. waaw dama ko xam ñu toll nii nii ba nii ba nii ba nii. man ci ta qualité bi nekk si moom mën naa ne sax man maa ko gën a xam moom parce que nit pour damay wax li nekk te yàlla tax waxuma lu neex si moom li nekk si moom man sax maa ko gën a xam moom moom xam na ko mais dama xam ne booy boobu lu nekk si moom suñ ko tegee si kot rek jàppale ko encadré ko mën na andi lu nekk waaw barke alxuraanu karim complicité bi am sa diggante moom Lansar bëri na ay mbër mais ma la euh, ki ci mel ni Mama Lamine ak euh, Abou Ndiassé ak Siteu mm-hmm. seen diggante ni mel waaw xam nga man Siteu muy Mama Lamine man du nekkul écurie moo ñu boole. man Siteu dafa nekk si dama bokk si ñi ko gunge ba mu doon ni mu doon nii. du ay écurie moo ma booleeg moom wala ay làmb non dañu ànd balaa làmb ba tax mu ñëw écurie Lamsaar. ba bëgg bëre ba tey yàgg na bëgg bëre mais man bokk naa si li tax Siteu ñëw écurie Lamsaar. waaw. moo tax nga indi ko écurie Lansar nga ko daan gis muy bëree nga gis. parce ñoo yàgg ànd. lañ man fii laa fooyee jàmm gan lépp fii laa ko mag. Lansar sama nekk. mais xamoon nañ qualité bi nekk si moom. looloo tax quoi. am na solo wax nga léegi ay qualité mais ki muy bëreel am na ay qualité Modou Lo ndax yaakaar naa moom it ba muy dugg si làmb Modou tuddoon ñu dem ba naan ko xareñ. kon kooku am na lu mu def moom it ci làmb est ngi sóor nit doo ko bañal li mu doon ndaanaan la xam nga nit bul soxor loolu bëri na fi combat metti gis nga génn si ci ñaari combat mi jógee nii rek leneen la quoi loolu leneen la mu loo jàmbaar la pare nit ku gëm li muy def la bëgg li muy def li ma ko gën a nawee mooy entraînement bi mu nga xam ne da koo bëgg waaw parce que làmb entraînement la moom daal dama commencé xam loolu quoi moom gars bu ñu ko ko jàppee naan ay taxul mu ngi sangu mais dem na ba xam ne lu ci ëpp importance mooy entraînement. macha allah yi doon xar combat Modou Lo euh, wala Siteu Ama Baldé par combat Siteu ak Modou Lo taxaw amateur bëri seen xel nekkoon ci Ama Siteu. waaw ah, mais gars yi bu ñu di loolu lépp day ñëw. Siteu Siteu Ama mën na ko lépp a si kanam. non mais lépp day ñëw. Siteu ñaanul yàlla bëre ak Modou Lo kese ñaan na yàlla bëre ak Modou Lo Balla Ama ak keneen ak keneen ak keneen mbër yi bëri nañ. Mhm. Eh, loolu yàgg yàgg nañuy bëri mais tey gis nga tey nañ xool benn exemple Ama nekkul si contrat. léegi ñoom lan lañ bëgg Siteu toog xaar ko xanaa Siteu bëggul dara moom. man biñ naan xaañ na nekk nag nekkul ma ne ko mais boo yow qu'est-ce qu'il da nga dof xanaa mu ne ma ah, li ngay def ni du yëfu nit te automatiquement du yëfu nan nga mënee toog di xaar ku bëre mel ni yow da nga combat laa jafe wala yow nekkoo produit boo xam ne yow la ñëpp di wër mais kon loolu sànni sa xaalis la. après si loolu toog xaar tey dama ko yàgg gëm loo ni Modou day bëre ak yow. da ngeen di bëree far fos dama ko yàgg gëm loo lool. te man dama yàgg gëm ni Modou Lo si te dañuy bëri surtout ment bi Tafatine dawee jël baa Gaye noonu. waaw waaw gars yi di waaye eh, Tafatine man leen Tafatine yàqalul kenn de boppam la yàqal dafa toog xaar far fos day bëre ak mais boo toogul xaar. Uh-huh. tey ñu nga gis si te dugg si émission woote ba ñu wax moom ak la moom Balla Gaye ba mu nar a taxaw. Uh-huh. nga xëy dem ko jël ko si loo xam ne yow liñ fay si te sax fay ñu lool. léegi combat si te la dagee combat kii taxaw ñu bëgg naan. moo loolu lii bëgg naan ne du combat non góob ma loolu la ma tax du combat léegi la ma doon ñu nangu si te ama combat la. nee nañ boobu combat combat jàng parce que dañoo ne Modou Lo ak Siteu daa am affinité bu nekk seen diggante xaw ma am na mbokk kuy sëy fii xaw loolu moo la ñotoon xelu gaay gis nga nañ bàyyi loolu gis nga làmb amul yooyu nit man ngeen bokk ndey ak sax mu nekk fële ngeen nekk fii bu leen làmb boole ngeen koy def man de sama xarit bu may nekkal xam ne lii làmb la làmb war leen boole nga ne naan lii ak laa dama la fay wax sa bopp dem sama yoon waaw parce que Siteu ak Modou Lô duñu ay tamit du ma gis cent millions war ko dugal sama gale kee war ko dugal gàlle ma ay mbokk ak ay mbokk bi du jeex mais làmb day jeex xam dangeen da ngeen di bëre mu jeex ka la meilleur gañ di ñaan yàlla borom bi ànd ak ñun may ñun ndam bu sedd guy Tapha dafa yàqamte de ñi ko yor maanaam maanaam am am nañ gis nga ni da xool làmb yi di xool cirque di xool cirque làmb yow boo xoolee bu fekkee porox poroxoo mhm. da ngay toog xaar. Tapha Tine kon li ma li nga bëgg a wax mooy force moo Lo la waroon bëre. du mais moom moo ko yàq xam la nga moo ko yàq. Mhm. yow ñuy woo Siteu direct muy wax ak Balla Gaye ci émission. Mhm. Balla Gaye ne yegg nga ku bëreeg Lac de Guiers te Balla effectivement dëgg la Siteu yegg na. ku bëreeg Lac de Guiers ba tenir ko. war na mën a bëreeg yow. te Balla Gaye mi mën a bëre ak Modou Lo la moo tax mënuñu Balla mi man a bëre ak Siteu la moo tax nangu waruñu nangu ni Modou Lo ak Siteu mën nañ bëre pourtant Balla Gaye moo daan Modou Lo ñaar yoon léegi combat gars nangu nañ ko léegi Modou Lo la moo tax nanguñu kon combat ak Siteu làmb la léegi dafa xaw a garaaw. te uh-huh. nañ bàyyi loolu. la billaahi Tapha Tine bu yàqaloo bu yàqamtul woon toog. kon Modou Lo moom lay bëre Modou Lo bu toogee amul ku muy bëre lay dem bëre Tapha Tine mais loolu la mais yow mënuñu fay Siteu benn kase jubóowuñ nga xëy deux jours daw dem jël Balla Gaye dèjà xañoo foofu Siteu te xañoo ko mhm. yàlla moo ko xañ foofu mhm. mais tefaat Modou tamit toog war a xaar ay mbër gañewul dara pertement la amul combat surtout amul combat. mais loolu mais loolu nekkul pertement si ñoom ñaar ñëpp. nga war a toog yow yaa ngi yéen ñaar yéen fi nekk mbër yi gën a xew. war a toog di xaar gars yi di bëriwaat pour fekk si leen pour lan. moo loolu bi mu xoolee day dem business yi day dem meeg ji moo ni na ñoom ñaar yàlla bu ñu defalee ndam wala dara mën nañ wax mais yow boo toogee kii bëre daan am xaalis war a commencé at yow nga tëdd di noyal war a jug yooyu pertement la. laa mu tollatul foofu. macha allah ni nga gisee woon combat ya gisee nga ko Siteu Ama Baldé incha allah Balla Gaye Ama Balde. combat woowu nan la nar a mel moo am Siteu Ama Balde. non làmb la rek. comme làmb yi rek. dina garaaw la am. non làmb la comme làmb yi rek. parce que xaalis lañ leen di fay ñoom seen làmb jooju sa waruñu ko sorxo sorxo nii ay weccet. est que xaj na arène non na fa kay loolu lay dara mais nañ leen fay xaalis bu ko jar. Mhm. parce que benn làmb ji day neex. signature yi day neex ñuy jaay làmb ji. loolu boo ko defee intérêt signature leneen la xam nga làmb yooyu la laaj di maanaam di gën a innové di tëgg ay làmb yoo xam ne intérêt sax signature boo ko defee gars yi dañuy dugg làmb si kii Modou loo Ama bale bu bees ba la rek <laughs> loolu boobu si bii sax ay raw boobu raw boobu barki maam Cheikh Rafal am na hmm. solo duñ fi jug te ñu tuuti ci carrière Abou Ndiassé yaakaar naa promoteur yi ñu ngi lay contacter pour bëgg sa combat waaw incha allah instant bii moom ñu ngi si quoi ndax dañ ma ajoon mais gëm naa ni jeex na xam waaw lan la ajoon après combat yàgg. dama ajoon waaw 6 mois xaw ma 3 mois la. moo moo ma jaaxal moo jaaxal ñëpp. te tamit man CNG samay kilifa lañ mun ma fi nekk di wax di dàggasanteeg ñoom xam man du ma genre góor boobu. man dama ne góoram boo ma defee loo xam wala lii bu ma si ma mënul wax ak yow ni dama koy tegeen du ma si débat chaque jour parce que mooy loolu. Mhm. parce que ñoom suñuy kilifa lañ budul dara. macha ñu ngi lay proposer ay adversaire jamono non waxaguñ ma ay adversaire mais daal xam naa ni bëgg nañ sama combat daal lañ ma waxagum. Mhm. mais waxaguñ ma adversaire bi. mais man maa ngi daal pour làmb. mais maama euh, Abou Ndiassé am na ñu bëgg a bëreel ay potentiel adversaire waaw maa ngi fi pour làmb xam nga làmb léegi dafa métti. Mhm. boo nee diw sax ñu mais man maa ngi fi pour làmb ku làmb bëgg ma bëreel rek damay bëre. Mhm. parce que làmb maa ko bëgg quoi. mais du xaalis laa si gagné wala dara noonu parce que man maa ngi sant yàlla. Hmm. abu ah, day euh, day duggaat parcelle wala day dem géejawaay wala day dem Pikine. maa ngi fépp man daal sama dëkk bi laa fi bàyyi ak jàmm gën. nee naa la man ku ma làmb booleel ci àddina damay bëre ak yow tund bi rek laa fi bàyyi. mbër yëpp samay gaane mais looloo tax pour ma fréquenté mbër ni sa dem ni aw jot boobu. billaahi doxuma si loolu quoi. mais Pikine Pikine jàmm gën chaque jour derby bi. Liss Ndiago ak nga xamante ne mooy Pokola. gis nañ ñoom ñaar seen combat enjeu bi ci ne. teg boo ñu doon wax ci combat bi. làmb la. la boo xam ni leneen la. waaw te nit di nga xeeb xal mu lakk sa daay. nga xeeb. xal mu lakk sa wax la nag. wax nga wax. waaw. Liss du ñeexu ñebe yooyu de. Liss <laughs> nga gars yi di sóoral ci Pokola yaa ngi koy bàyyi xel. non man moom wax dëgg fa yàlla Liss. lim fi mu ko war a teg bu ko tegee. teg ko si yoon. mën na daan ku dul laa ni da ngay wax sa dëgg quoi. bu ko tegee si yoon laa la. teg ko fi mu ko war a teg mën na si génn. waaw. mais Pokola nekk mbër moo xamante ni mbër mu naqaree calculé la. du yëg door gars moom nee na du yëg door Poko mbaam lan koy wax. ndaanaan la ni da nga koy waxal li nekk. champion la parce que gis nga combat yi fi mujj bëre. waaw yàlla mu ngi koy suturaal di ko defal ndam. waaw mais am na combat. am na combat. am na de. tey tey lan ngay tiital liis ci Pokola. non liis bu ma waxalee dëgg rek tiitalu ma ko dara bu liggéey am doole. tiitalu ma liis dara ci combat parce que xam naa qualité yi xam naa xeetu bëre bi muy bëre xam naa ni am na esprit quoi yeewu na. am na sens bu baax xam nga làmb nañ baax gis nga làmb mu demee ba boole ñaari mbër rek ñëpp am sens. loolu amatul. mais ñeme dëgg la ñeme na ni da wax ñeme na mais mënul xeex. Pokola mënul xeex. dafa ñeme rek mais mënul xeex. Mhm. parce que li muy may gars yi di ibbi gardam bu ko mayee liis mais liis am na force de frappe boo xam mun na dóor mu daal. waaw loolu ci sori quoi mais daal leneen la quoi loolu lu ñuy wax mais liis mën na dóor ku nekk mu daanu moom it. macha bëgg naa la naar di baalu àq ñëpp nag waa di wax mooy loolu quoi. yàlla baax na daal yal ñu yàlla defal ndam combat yi booy am combat yëpp waaw bu laal tamit am na combat moo gàkku deux uh-huh. waaw te loolooy làmbam fii si ko côté bi am na mu may moo leen waaw Pokola moo leen boole moo tax làmb ak ak garaaw uh-huh. làmb mu ngi noonu Pokola ñaari mbër yooyu mosuma jàpp na leen daan mosoo jàpp ni ko jàpp wax dëgg fa yàlla kon gis nga moo tax làmb bu ñu boolee ñaari mbër rek ku nekk mën nga daan sa morom moo tax liis mën na la daan ba ñibbi <laughs> barki maam sera te ñu ngi koy ñaanal bëggee ngi noonu mbokk yi li leen leen indiloon tey ñun ak Abou Ndiassé yaakaar naa ni namoon ngeen ko waaye tey indil nañ leen ko à travers li ci réew mi TV ak Bawal TV di bëggewaat ñëpp di nuyu bu baax a baax la DG Omar Sané borom Géejawaay ak Medina Gunaas di ko wax ñu ngi sa ginnaaw yow foo ñu woo ñu wuyu la yow yaay borom waay borom Gunaas jàmbaar nga Euh, dawoo xare. fépp fu waa sa waay daa ci Modou Lo ñu woori. waaw affaire yi koor gi tam mu sedd nii de. ñun dañuy làmb de dawuñu dërëm. kon après koor gi. waaye lépp a yëngu. yi dara yow. am na solo barki maam. ayca Omar Sané duñ taay di wax ci moom. DG borom géej Géejawaay borom Medina Gounass di la bëggee di la jox sa wàccuwaay di la wax ñu ngi sa ginnaaw saa boo gisee gis ñu. ñaanal la ñun say bay faal la ñun topp ñu la ndax euh, dara da la topp te yàlla tax. topp la ngir bëgg la topp la ndax bëgg nga xamante ni bëgg nga ko géejawaay rawatina commune de Médina Gounass ñu lay ñaanal li nekk sa kanam yàlla na dàq di nga weesu ci barke yonent bi yàlla gën a yokk sa wërsëg ndax yaakaar naa sa wërsëg bu yokkoo ñu nit dinañ ci gis suñu bopp géejawaay dinañ ci gis seen bopp Médina Gounass dinañ ci gis seen bopp ñu lay ñaanal bu baax a baax yàlla defal la jàmm sutura ak teranga di béggawaat sama caméraman Seydina Aline Badou Faye di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di wax ay jàmbaar lan euh, xale yu yaru am teggin teel a xëy guddee wàcc yaa ma gën a xam ne ci waar bi sëñ Fallou Seck tab sëri Touba Xayra bégg naa la siyaar la doomu nday Kalidou di béggewaat ñëpp di leen jox daje beneen yoon ak beneen champion jaajëf